Calendar Je veux vivre, rester libre. Je veux m'envoler vers le ciel. Dans les Yeumbeul Sud bu bees Yeumbeul Sud bu bees Yeumbeul Sud bu bees Yeumbeul Sud bu bees ñu jox kaddu gi ah kii nga xamante ni moom le président Macky Sall woon ne ko yow yaay doomu Yeumbeul dama lay nommé ambassadeur itinérant Modou Mbène Diop ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax. Fodou Mbène Diop. Fodou Mbène Diop Kare Xarimata Roxe Xarimata Xarimata Fatima Yaasin Mayasin Fatinta Abdou Daado Buuna Daano Ndumeñaan Njaga Kod Baasin Seer Daado ma demba maram yaat ma sa maama Jolof juddu jikko daraja jom l'islam intelligence compétence expérience personnalité yàgg na sa kër maam jërë ngeen jëf sargal son excellence le président Macky gërëm ko bu baax ci tànn bi mu tàntay fii ci yëmbal ci doomu yëmbal jël ñu def ñu ambassadeur itinérant ci wetam muy loo xam ne lu réegi ñun la di ko ci sant di ko ci gërëm ndax nit ki la boole ki jël la boole ci cabinet dama jàpp ne koowulul doo ko def kon ñuy gërëm bu baax son excellence le président Macky Sall. ginnaaw loolu maa ngi gërëm suma xarit sama frère monsieur le ministre maire monsieur le ministre maire Amadou balaa may dugg ci Amadou nag maa ngi gërëm sama réseau des femmes yëpp yi nga xam ni tey ñoom ñëpp teew nañ fi tey maa ngi leen gërëm di leen sant di gërëm la jeunesse seen taxawaay rafet na xëy na discours bi gudd waroon na mën a gudd mais guddi na te xat na moo dañ koy rek dañuy demaat ci Amadou Hott ci taxawaayam li waral son excellence le président Macky Sall tànn ko teg ko ci boppu Yeumbeul Sud muy sunu candidat Benno Bokk Yaakaar au niveau Yeumbeul Sud kon monsieur le ministre monsieur le ministre maire ñu ngi lay féliciter di la rassurer sa ginnaaw te xam ne ñun ànd nañu ànd nawle ànd ànd góor pour liggéeyal son excellence le président Macky Sall ndax xam nañ ne liggéeyal président Macky Sall moo la ñor mais liggéeyal sa dëkk moo la ñor mais liggéeyal sa Yeumbeul Sud moo la ñor tous les alliés ak Benno Bokk Yaakaar dinañ taxaw le 23 janvier le 22 nañu teel tëdd teel a yeewu def petit déjeuner def suñu café au lait dem ci mbagn yi votel Benno le 23 janvier li ñu bëgg mooy mairie bi ko ci président Macky Sall ki ko frère monsieur le maire Amadou loolu pour askan yëpp yëpp dañ ko gëm lu nekk ci ñun la wax leen kan mooy Amadou Hott naam bis bi ndax su sargal son excellence le président Macky Sall jàpp naa ne bisam la moo tax parce que wax ji dafa bari Amadou Hott dëkku fii Amadou Hott mais importé loolu ku yaakaar naa ko ko wax yow yaa fi dëkkul ndax Amadou Hott fii la juddoo yaroo yëmbal siit jànge fii yàlla may ko mu uti doole dem bitim réew. sur ligue sénégal lito ah jangoro ji amna safara amadou or yessina yembou bu bes nga bëgg am amadou or mom néna avec amadou or yembal bu bes tali bu bes lampu yu bes école yu bes marché yu bes dëkk bu bes avec le col candidat amadou or léegi nag jërë ngeen jëf waaye tey nag bis bi dafa am koo xam ne dafa bokkoon ci ñun tey muy Adama Fall di ko daan bu baax ndax bis bi yàlla dafa dogal mu bokkoon ci yàlla dafa liggan ci moom bërki démb ndax bokkoon na ci ñi xam ne bërki démb recevoir nañu ay tusi pour di préparer bis bi ci diggante bi yàlla moom ko kon ñu ngi ñaanal al sunu digeen Adama Fall yalla yalla ko xaare ko aljana ci yalla suuf sedd ci lo kawam di gëreum famille yëpp yu ñu fi délégation. assalamu asalaamaaleykum euh, wa Yëmbal Sud ma ngi leen di nuyu di leen gëreum di leen sante ci seen mobilisation exceptionnelle mobilisation boo xam ne macha allah law na cat. Alhaji Modou Mbène Diop mon cher frère excellence Alhaji Modou Mbène Diop excellence maa ngi lay nuyu di la gërëm di sant di la gërëm di la sant C'est initiative bi nga am pour sargal sunu leader le président de la coalition Benno Bokou Yakar, président du Sénégal son excellence Macky président Macky Sall sargal Diko ko Diko Santu, ko ci président def nako fi Sud te am nan yaakaar moom la ñaan maa population bi yëpp maa ngi am mbégte ci li ngeen génn ndax président Macky Sall nuyu camarades yi fi nekk yëpp. gërëm nañ leen sant nañ déplacement engagement wa Benno Bokk yakar mais en particulier mais nak en particulier comme ni ko faral di defee tay mom mbégte kese xam ngeen nak comme niko Modou waxee ci ay élection lañ jëm dans deux mois et demi trois mois élection yu am solo élection yo xam c'est l'avenir de yembal Sud Mon nek en jeu avenir yëmbal sud moo nekk en jeu yëmbal dafa bëgg lu baax yëmbal sud bëgg na lu bees comme ni ko excellence waxee yëmbal sud bu bees ay école yu bees comme école Madi Ndiaye bi comme toilette Madi Ndiaye comme clôture bi ñu def ci école Madi Ndiaye ay école yu bees ci waa lycée yi ay tali yu bees tàkk

donc maa nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen comme ni ko Modou jour 23 Inch'Allah, janvier Inch'Allah, allah su deux heures ñu ne affaire bi jeex Nous ñu tàmbali bi pour les nga xam ne mooy bu merci waa merci waa merci everybody merci mon frère bu bu bu